gars yi yéen ak 28 pro yéen ak saw pro ci caméra kase yu bees tàq topp leen ñu ñu dox ak moom caméra kase yaa ngi ñëw gars yi ci 28 pro acca leen. salaamaaleykum. na eh, ngeen def jëriñ. man ki jaay fi. kaa jaay ma. yaa jaay fii. waaw da eh, ngeen def weer yi ñaata la jot. incha allah génneel ma bii ma xool waaw. ma xool bii de xanaa rafet na moom ah. waaw bii de si damaa jàpp daa ni teewal ni ma xool yéen a moom. Ah bii tamit nag tamit naa yées. bii rafetul de. Hmm? weer yu dàq yi laa bëgg de. yu dàq yi nga xool ko nga xool ban si. nga xaar milikaar yi ñuy xool. amoo weer yi photo photo photo gere yooyu rafet yooyu noonu. yu 15000. waaw yu yu kii yu 30000 yi 40000 yi. yooyu daa mel ne moo ko yooyu amoo. kon yan yan kii nga fi am. ii amoo montre bu rafet dax na non non. yooyu bii da daa mel rafet li ngay jaay daa mel rafetul de. te xool si kanam rek kon. ah. te xool si kanam rek. ah li ngay jaay rafetul rek tax na nga xam te xool ci kanam ah. Hmm? li ngay jaay rafetul tax na nga xam te xool ci kanam. Eh, maanaam weer bi nga bëgg ci laa amagul yaakaar naa ne. bii ma bëgg. bii nag yii ñaata la. yooyu day deux mille yi di jar trois cent. trois cent amul. amul. weer yi ñaata lay jar ah. ah. weer ñaar lañ yor. dina bëgg ñu waxaale ma. bàyyi bàyyi ma bàyyi ma jël bii rek bii rafet na. waaw. bii dama damay dem ak moom. bii. bii ma bii maa ko jënd. noo ko jëndee. non joxuma la xaalis bi léegi nga ne du ma ko jëndee. bon yow da nga maa jox dara nga ma jox eh, defal ndànk bul damm lii. dara nga ma jox waaw defal ndànk waaw taxawal taxawal taxawal defal ndànk. alma wéri jox ko dara waaw defal ndànk. alma wéri defal ndànk wéri mane ne jëlaat fi yeneen wér wér a eh. toogal man gis naa la damay jëlaat fi damay jëlaat fi beneen toogal gis naa la foo ma gisee parce que borom Tuubaa Mbàkke jënd foo la dama toog foo ma xamee dama toog waaye wér yi laa bëgg dama jox la dama toog jëndoo yow ab triant nga la maaleykum salaam ngay jënd taw xam nga ko wér yi naan ah, mu ngi doon jënd ah, non wér yi laa bëgg mu jox ma ko quoi jékki ma lay ab tiñaan waaw dama bëgg mu may ma weer rafet. yaa yaa yaa ngi may de da nga juum daa bëgg jël weer yu maa ngi tuub damay def benn caméra kase gaa yaa ngi ne maa ngi tuub dégg nga gaa damay def benn caméra kase <laughs> non kon kon kon du neex kon du neex maa ngi tuub salaamaaleykum een def meer yéen jàmm baax kii lu muy jaar bii téeméer bi seer na de bii nii téeméer la jar. waaw ji moom bii moom des naa ñor de yaay booy. Eh, ah bii moom des naa ñor moom yeneen laa laa gën a bëgg quoi yeneen yeneen orange laa bëgg gaa gën a bëgg. ah déet ah? Ah. kii bi dafa ñorul moo tax yaay booy. Eh, su ñoroon rek ma ma jënd ko dafa kii. noonu nga ko jëndee. ah bii nii xoolal bii xoolal loolu du yoon dañ nga dagg yëfu jàmbur ñem ko ba mu neexu la nga wàcc ko fa yaay bi d'accorduma ci bii dafa dafa xaw a kii sama yoon néew ah bàyyi mbar kii rek bii de daa xaw moo ah, mbuusi nan laa koy faye man lii d'accorduma ci waay bagage fi jàmbur nga dagg ne di ko xotti di ko ah, dama dama woon ñor na dama yaakaar bu ñor la rek tellement lu ah, maa ngi koy tuub de maa ngi tuub yaay bi ah ko rek ba dama dama yorul xaalis moo tax yaay booy. boo yorul xaalis naka di ko dagg. Ah, maa ngi jégalu de. ok yow daal demagoo sama mbuus gi la koy wax ba doo ko bi damaa jàppoon ni kii bi na quoi orange bi. police ba police ba ëpp dem di. barke ma yóbbu nga yóbbu ma fa waaw ah, kon de bay boo di nga ma yóbbu ndax yoruma xaalis. Ah, man kay du ma dem moom. dem dem kay du def. du ma dem. police ba doo police ba kay du ma dem damaa yorul xaalis. damaa yor du ma la fayee. ah maa ngi koy jégalu damaa damaa na ma seet déedéet loolu taxul woon taxul woon a jóg. maa ngi tuub de ma ma ma maa ngi tuub. moo ko dagg moo dagg bu mu jël ci doom bi dagg ko ma xool amul kay. waaw gis nga dafa ñorul moo tax. Eh. bu ñoroon rek ma jënd ko yaay booy. loolu lépp li jënd tuuba ko man daal fay ma rek ma ne ma. yoruma xaalis moo dëgg yàlla fay ma. boo bëggee jàpp sa jàmm man damaa yorul xaalis dimbali ma rek. xaalis da ngay dagg dimbali ma ci sama. ay yaay booy dimbali ma rek. sëñ Fall da nga may fay. doo su ma kiyee dinaa la jox wuy ma ku yor xaalis waaw léegi police eh! man moo fa yóbbu ma téye la boo yor xaalis doo dagg ko ba bagage jàmm nga mi ñëw ca police ba lu tax nga ne ko dagg lu tax nga jóge fa la ñëw di ko dagg neex naam neex yaa booy tey nga maa ma a rek taxaw taxaw taxawal. fay ma taxaw bul de bu ma yóbbu bu ma yóbbu ca police ba. fay ma boobu nga jaamu fay ma barke suñ boobu fay ma yóbbu. Ah, waaw maa ngi tudd jéggi camara kase la indi dama lay fay. fay ma camara kase bu ma doon def la indi dama lay fay. xaalis ba camara kase bu ma doon def mooy caméra dama lay fay. maa ngi tuub maa ngi tuub baax. indi sama orange. doo may man. ñu ne ma bii ma xool. yéen a ngi jar juróom. ah xanaa Ndiaye nga bëgg a sant yow. ah. mu ne xanaa Ndiaye nga bëgg a sant yow. Ndiaye. waaw ah. Ndiaye moom kii la de. Ndiaye kay la yàlla xam de. Hmm, sa waay yow bii ñorul de. lan bii ñorul. xaal ah da ngay ma bi dindi ma bi ma xool. ma bi ma ba xam. muy cent franc kon. ah muy cent franc. muy cent franc. Ah, boobu fukki lay jar kay dagg naa ba ñorul. daggal ma dindi ma bii ma xool. te xamuñu ñor ak lu ñor lii ñor xaw ma la def. lii ñor xaw ma la def. waaw bii ba pare. waaw daggal ma bii rek ma xool gën a. waaw mooy 100 francs. ba mu daggal ma xool. waaw d'accord. ba mu daggal comme que jot ngaa dagg bii bii ñorul kay. Eh, déet ma jéem a dagg beneen rek ma xool. dégg ma. mooy 100 francs. waaw. téeméer yi. gannaaw bi ñii xaalis ñëpp yëpp yoo xam. waaw xaalis ñorul. xaari ñëru ngeen ma cent franc ah, waaw taxaw defal ndànk bul dem kon taxaw defal ndànk lan la bul dem kon taxawal sax yow yaa gi jaay xaw ma grand xaalis bu ñoree ma fay dafa ñor man xamul lu ñor ak lu ñor lu xamul lu ñor lu ñor bayu ma ko bayoo ko waaw moo ko bay waaw bayoo ko ba ba dem fi di ko jaay kon ça va ba tey ah waaw xaar ma xaar ma jéem wut fee dégg nga kaay waxoo ko xaar ma jéem wut fee cent franc joxal doo xaar mu wut fee sama. mënuma loolu gannaaw sa loolu loo bëgg. nga fay ma. damaa ba. nan dem nan dem. aywa nan dem di. man man nan dem nan dem. man damaa yor nan dem nañ koy yóbbaale. nan dem man damaa yor nan dem